que depuis presque semaine bi yëpp yaa ngi nekkoon ci préparatif yi tey mën nga ñëw ci euh, initiative bi naka la la dikkee ak bi mooy ñaateelu édition. waaw en fait euh, initiative bi mën na ni mi ñu dikkee ci vente privée yoo xamante ni man ak euh, Yacine dañ ko doon dem à Dakar di fay di jënd ay stand yu cher macha allah di ñu ñibbisi Yacine toog benn jour woo ni ma madame Fall. stand yi ñuy euh, dem di ko jënd à Dakar ay vente privée pourquoi pas Thiès am seen vente privée bopp ñu organiser ko ma ne ko bien sûr loolu lu mën a nekk la bi nekk deuxième édition bi première édition bi defoon nañ ko daaw au mois de décembre aussi voilà ñu daal di koy taxawal li def ko daal ci benn temps bu gàtt macha allah boo xamante ni matul sax préparation bi deux mois mu nekk tamit réussite totale macha allah du question réussite nag ci côté xaalis buñ ciy am mais l' essentiel mooy ñun na village bi taxaw parce que boobu ñu ngi amoon cinq stand ñu taxawal village bi yëf yi nekk réussite am autorité yoo xam ne macha allah ñëw nañu aussi jëmmal ñu félicité ñu ñoo xamante ni invité woon nañ leen mu nekk ñu ne nag dañuy def deuxième édition bi deuxième édition bi aussi euh, ñu def ko fii ci mairie place de France te on est à plus de cent stands macha allah donc euh, ñu jàpp ne aussi ba tey réussite la te ñaan nañ yàlla aussi am yeneen édition ba mu dem ba nekk international incha allah. nu ngeen di nu ngeen di choisir ñi nga xamante ni ñoo fi ñëw exposé ndax atu daal ci bépp jaaykat. Mhm. mën nga ñëw si lool. waaw bon atu ci jëpp bépp jaaykat mais comme ñun dañu woote contexte vente privée aussi. Euh, am nañu lu ñuy bëgg loo xamante ni comme tey boo xoolee foire bi da ngay gis ne y a la classe d'abord hmm, nekkul ne dañuy sélectionner que ku ñëw ñëw ñëw rek dañ lay jël parce que loo xamante ni dañ ko toog waxtaane bugguñu foiru cambar cambar boo xamante ni tey day bari nit te euh, nuñ koy waxati produit ndiroo comprendre nga du am organisation voilà musique bi ku nekk di tëgg sa musique ñun bañ nañ ko benn DJ la ñuy jël ñooy rek sonorisation donc gis nga foire bi ni mu calmé te terewul nit ñaa ngi fi nit ñaa ngi dugg di visiter stand yaa ngi fi rafet macha allah te yaa ngi fiy gis produit bu nekk am na fi même géej yéet am na fi mais ak niñ koy présenté loolu dañ ci dañ ciy veiller bu baax en fait objectifu foire bi mooy que ni tey Thiès bari na ay jeunes. daam yu mel ni ñun ay xale yu ndaw yoo xam ne ñi ngi am seen entreprise yoo ay boutique nekk seen koñ ñi nekk ci seen biir kër ku ci mel ne man tey depuis 2012 maa ngi ci jaay wala bien avant mais sama boutique sama biir kër la nekkoon peut-être bi ma ubbee boutique récemment yàggul te xëy na nit ñi sax ñoo ma ci poussé mais li ma doon def sama biir kër moo ma gënal parce que xam nga déjà boo nekkee mère de famille dafa am yu bari doo ko man donc euh, ñu bëgg ñi nga xamante ne ñi ngi ci seen ruq di yëngatu nit ñi xamuñu leen ñooñ la ñu bëgg génne ñu génn bu ko defee nit ñi xam leen parce que fii pour ñun visibilité bi rek lañ fiy wut loolu lañ jublu ci foire bi may nit ñi visibilité may nit ñi opportunité boo xamante ni tey xale yi dañ ci dem Chine dem Dubaï jënd ay bagage ñëw teg ko sa salon mais ñaari nit ñetti nit ngay jaay le rest nga stocké ko doo xam noo koy def donc fii ça permet tey di xam ñeneen. cliente yeneen fekk la fi nga boole loolu yëpp incha allah yokk sa euh, euh, nu ñu koy waxatee sa carnet d'adresse voilà. justement loolu moo waral sax dem nañ visiter stand yi mais ku ci nekk benn kàddu lay wax lii c'est une opportunité la boo xamante ne bi nii ñoom mënuñu leen ko fay parce que aussi dina leen permettre ñu am ay carnet d'adresse comme li nga ko wax. ñu gisan ñu gis yenn nit yi échangeante loolu mooy euh, solo si. waaw waaw mi ngi noonu parce que déjà ñun bañ ne ko bu ñuy ñëw boo du ñu ne dañuy tëgg suñu foire démb ba tey nit ñaa ngi fi taxaw bëgg ay stand fay na ñun prix yu ne ñi nga xam ne ay foiriste lañ leen di wax foire rek la ñuy topp prix bi da leen koy jaral parce que gis nañ foire bi taar bi fi ne gis nañ foire bi euh, seen xel dal na ñu bëgg dugg mais malheureusement euh, dañoo am suñu limite yem fa mais bu fekkoon ni mairie bi yëpp mën nañ ko bâche mais du loolu mooy objectif bi. xaalis bi daal xaalis bi ñu leen di fay yéen promouvoir jeunesse bi daal moo leen tax a jóg. te ñun dañuy déjà dañuy euh, nuñ koy waxatee dañuy insister cliente bi ne ko booy ñëw indil say carte de visite booy ñëw defaral say sachet personnalisé de telle sorte que boo ñëwee même soo jaayul fexeel nga distribuer say carte de visite pour que kooku bu xasee ba dem dina toogaat xelam ne ah diw parce que man mii daf ma daal dama ko dund. toog naa foire jaayuma ma joxe samay carte de visite tey pratiquement mun naa ne am na établissement privé yoo xamante ni même public am naa fa ay clientèle yoo xamante ni ci sama carte de visite boobu tey ma leen joxoon ci la lu ñu soxla pour ñoom bu ñu woowul aram amuñu ko dañ lay woo xam loo xamante ni sax nekkul sa domaine mais damay efforcé wu wutal leen loolu wala ma dugg ci groupe bi xool kuy jaay loolu ma ne ko diw jëlal numéro bi diw mooy jaay nangam. message jeunes yi parce que lii aussi tamit boo ko defee bëgg nga ñu toog seen réew xam ni seen réew liggéey mi ngi fi am na ñoo xamante ni ci dëkk bi leen juddoo fi leen màggee te fi leen tekkee jël beneen yoon gis nañ jigéen ñi sax di jël ci benn ci yoon yooyu tey message bi ngay lancé jeunes yi. Euh, message bi may lancé mooy pour man affaire bi nekkul ci tukki que su ma tukkiwul du ma tekki su ma tukkiwul duma am. tey su ma naree jël sama 2 millions wala sama 5 millions ne damay tukki je préfère ma investir ko parce bu ñu demee dañuy liggéey dañuy liggéey liggéeyu jàmbur dañuy liggéey du n'importe quoi alors que suñu dëkk bi am nañu ay ressources am nañ lu ñu mën a liggéey loo xamante ne tey di ci gis sa bopp di nga ci suturlu parce que loolu la ñuy wut xëy na am lu ne gaañ kenn waxu ko mais na nga am loo xamante ni au moins di nga lekk ba suur di nga naan ba màndi di nga sol yére yu rafet di nga dawal ci oto yi te mi ngi ci biir dëkk bi war nañ ko fi mën a liggéey. tukki nag dëgg la neex na mais du objectif nekkul que ni kut ko kut nañ dem déedéet li ñu bëgg yëpp am na ci dëkk bi donc nañu gëm suñu bopp gën a takk suñu ndigg soqali suñu réew moo gën parce que réew yi ñuy dem ay réewu jàmbur lañ seeni jeunes ñi ngi fa toog bu buñ fi ñëwee visite lañ fiy def pour pourquoi pas ñun ñu dem ba tollook ñoom foofu aussi dem visiter ji bon suba damay dem Paris def fa benn une semaine nangam ñibbisi ñëw toog parce que yaa ngeeg sa famille yaa ngeeg si lan ngay wuti parce que yooyu mooy waral des tamit nga dem ñu dund fa yoo xamante ni yow ñun dañuy toog di seetaan vidéo yi bëgg a jooy alors que tey mënoon nga ko éviter nga toog sa réew. dun fi duñ ñëw ba kii te duñ la laaj nag yow lan nga exposé tey yow <laughs> yan bagage nga ñuy exposé fii ci ci foire bi certes yow yaay initiatrice bi mais quand euh, bon man moom li ma exposé macha allah bari na mais vaisselle ci laa gën a misé voilà parce que man moom vaisselle sama yëf la daal dama koo bëgg man dama bëgg vaisselle. bëgg vaisselle bu rafet bëgg ay dressage ay table ak affaire. ndab ci ñu xamul ko mooy ndab yooyu daal laa bëgg moo tax tout le temps moom mën naa er damay jaay ay tissus damay jaay ay jouets xale mais tey moom ci vaisselle yi laa misé macha allah voilà parce que daal tout le temps damay dem ci loo xamante ni nii euh, passion laa ci duggee muy vaisselle yooyu noonu. ci bi. fii soit foire bi kañ lay jeex ak balaa boobu muy jeex lan ngeen xaar. waaw euh, foire bi mi ngi commencé tey le 6 war a jeex le 12 incha allah maintenant bon am nañ ci ay invité yuñ ciy xaar am nañ ci aussi suñuy marraine yuñ ciy xaar di ci xaar aussi ay parrain mais ba tey ñu ngi leen di xaar daal te am nañ seen kàddu këni dinañ ñëw buñ ñëwee aussi dinañ leen recevoir ci nu mu gën a rafetee macha allah ñun ñëpp ànd suqali Thiès.